salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal di kontaan ci yéen amati mbégte ak contentement ci jàkkaarloo ak yéen démb Leewtoo production tëggoon combat bu mag démb moo nekkoon le 6 janvier 2024 diggante Tidiane fay ak Ndandi la le technicien de l'arène ak le professeur de l'arène ñoo doon daje moo tax démb nee naa la combat bi combat jinne la combat bi bëri na polémique bëri na coow mais arbitre loxo ki nga xamante ne bii moom mooy Ndandi la yëkkate jox ko ndam li ñu koy ñaanal bu ndam li jikko ñu fas yéene waxtaan ak moom ci wàccaayi combat bi ak naka la duggee woon ci biir combat bi champion ñu bàyyi la nga nuyoo. waaw di wax auzubillahi mina sheytaani rajim ginnaaw bu ñu sant yàlla julli Seydina Muhammad di gërëm suñu ñaari waajur di gërëm waa koñ bi yëpp xam ne fi nga fekk di leen jégluwaat di jéglu sama yaay sama mag yi sama lépp képp ku fi nekk si koñ bi sant naa la gërëm di leen jéglu sama rakk yi samay doom yi yëpp maa ngi leen di jéglu bu baax a baax a baax di leen gërëmaat di leen jox suñu wàccuwaay bu baax a baax di gërëm ñu ma àndoon ci làmb ji yëpp mooy samay supporter samay xarit mooy Baye Baye Tafa ba Ibrahima Ndaw ak waa koñ bi ñu mel ne ñoom faali sama booy tout tànk yeeg ñëpp ñoom jigal ñoom Cheikh Bambara samay raq samay mag ñëpp sant naa ne gars ñoom Matar Gueye ñoom ñëpp bu ma limee juum quoi képp ku nekk si koñ bi sant naa ne gërëm ak ñoom ñëpp jàpp nañ ci baaba sama jël daa jóge ba fële ñëw ngir combat bi sant naa ne gërëm leen bu baax a baax a baax di gërëm sama waa dëkk waa waala mbaan teg la te mais waa ne leen ñaan yegg si na di gërëm peneelu mbaan jagle tamit di ko jox sama pa sama papa Alaaji Sarr mu jàllale ma leen ñëpp sant naa leen gërëm leen bu baax a baax a baax a baax a baax mbaan jagle tamit sant naa leen gërëm leen di gërëm nag sama waa koñ zone 7B bi yëpp waaw nga am taw sant bu baax waaw mais mais dañuy dugg ci wàccaayu combat bi mu mel ni combat bi ni nga ko waajee wuute na ak ni nga doon waajee yeneen combat yi waaw combat bi dama ko waaj ba ci wér fan ndog-ndog am si ma gaañu ba ngay ñëw bi da maa ngi amee métit mujj bi physique rek laa doon def dama gaañu woon ci faar gars yi ma bu gars yi yenn yenn dirigeant dañu waxoon rapporter combat bi man leen combat bi carrément dama koy bëri su may dee dama koy bëri ma jaayante ko ba xaw a tane moo lu so mujj bi dama doon physique loolu laa bëree combat bi man combat bu ma soxaloon la combat bu ma jaraloon la waaw. waajtaay bi. mu mel ne yenn combat yi. nga leen ëpp doole waaj naa si ma coono yow fekk nga ma fële may entraîné teg naa sama bopp coono gu méttee méttee méttee métti si bi wax dëgg neex yàlla am naa si doole sànni naa sama bopp Tidiane Faye la champion la nangul naa ko daan na doole tamit moom wax dëgg neex yàlla li ma yaakaaroon sax xam naa ne na doole si combat bi sant naa ko gërëm ko indi na doole. dalante xam nga ne andi na na maa ko moo ma gën a oyof saa su ma na ma mën naa def kat appi ba affaire yooyu moo tax xaw naa def sax trois appi mooy si jël bi pivoté ko bu ma ko pivoté naj ko ci suuf samp bopp bi arbitre bi arbitre côté bee la nekkoon wan loolu ala kulli aal bopp bi samp na dënn bi dóor na. bi samp na. dënn bi dóor na. foto yi leer na nañ bopp bi daa samp jébi dóor na jébi dóor na. bala ñoo ñëw bala ñoo ñëw foofu avant avant combat bi dama fee ñëw nga ne ma tiijaan maa ko gën a doon xale maa ko gën a soxla te maay def lépp mu mel ni maay def lépp boobu man maa ngi doon xaar loolu mais dañu gis démb arbitre suuf li nga téye sa bopp. man maa song nag wax bi yëpp nag. maa song trois song yëpp Tidiane Tidiane dama ko song mu daw génn géew bi te man liñ ma bëriloo woon sax samay staff dañ ma woon xaaral ndax yaa gën a diis Tidiane tey ci combat bi Tidiane moo la gën a oyof staff loolu lañ ma diggal waaye bu ma ñëwee bi suuf man maa ko song dàq ko mu génn géew gi ma dawaat ma dawaat téewaat ko yëpp maa song Tidiane maa daw song li fa am lu si ëpp maa ko def wax yee bare rek mi ngi wax. Tidiane même ba ma ko yettee ci biir gi moom mi wax dafa yàbbi protestant bi barke alxuraanu karim may seen mi ñu wàjji yàbbi protestant bi boo gisee ba bañ ne ñëwal bëre maa ngi arit bi naa la ngay wax ak arit bi waaw boobu a jël protestant bi raxas ko xam comme loolu avertissement par la force la te loolu yëpp joxu joxu ñu ko avertissement maa naa ko xam ne Tidiane daanu na man amul benn bu ma reculer ba génn géew gi Tidiane dama ko génnee géew gi. ne am na fu la gëddee. gëdd man dama gëdd daf la gëdd nga nga reculer ba ca ba ca wetu saako yi nee foofu danga war na jël da nga war na jël avertissement. ne combat bi jegewu ma sa saako yi. Tidiane gëdd la ba ci wetu. non non dañoo léew dem el ma ma ma ma ne la ma cokkaat ko tas bu dee loolu lay wax loolu mooy avertissement xanaa comme si de kon la déggee rek nga war a jot dix avertissement ndax man bëre man ci biir làng ji laa bëre man génn jegewu ma sa saako yi. Tidiane moom ma gën a gaaw damay bëri moom lëkk di ko gis saa bu ne bëri maa ngi koy sànni maa ngi koy sànni droite maa ngi koy sànni droite maa ngi liir naa combat bi est-ce que dégg nga li ma wax Tidiane amul benn yoon bu man bu ma jege saako yi moo ma ko génne bu dee jege naa saako yi te moom dama ko dàq ba mu génne saako yi Tidiane waruñu woon yegg foofu foofu ñëwee avertissement waruñu foon yegg Tidiane dama ko daan ba mu leer nañ ci biir géew gi te loolu ma dinaa bind recours si jël boo man jël bu ma jox neexuma jël ma ko daan ci biir géew gi laay bind recours ñu jox ma sama jël ci biir géew ok ok kon ah. jël bi la arbitre jox par avertissement neexu. neexuma jël bi ma ko daan si biir géew gi lañ may jox sama avertissement sama dam te jël boobu ma ko daan ba mu ba mu leer nag dama ko naj ba bopp bi laal suuf te jël boobu dinaa bind sama wax naa sama ménager damay bind recours ñu jox ma si jël boobu mu noonu sama victoire ñu gis fi nga ko àgg nga àgg ko fu sori foofu ngay wax fi mu fi nga fi nga fi nga jàppee ne dafa teg bopp bi foofu noonu. jël bi yow jàpp nga ne jël am na foofu mais bu fekkee jël mënoon na gën a leer parce que foofu ñett nga ko moom mi ngi ci suuf amatul amatul amut nekkatul ci position bu baax maa ngi koy wax ci reportage bi maa ngi naan ndandi moo gën a nekk ci ci position bu baax mais foofu est-ce que làmb ji làmb ji nga yaakaar ne mënutoon a gën mënutoon a mënutoon a jeex foofu benn yoon. foofu noonu bu dul woon sama faar bu métti bi damay jóg yëlëb. parce que gis nañ gis nañ Modou Lo Boy foofu la jeex. waaw bokkul Modou Lo Boy Niang bokkul. bii Tidiane dafa samp benn non Tidiane dafa samp benn om jàpp sama ngemb la jàpp dafa jàpp sama ngemb ba pare samp benn oom boobu day am assise day am day am doole foofu noonu man bu dul woon sama faar bi damay ne bërët jóg yëlëb ko comme Modou ma ko waaw Tidiane dama ko boole ko ba mu dóol dënd bi. faar bi lu ci nekkoon. ma sama foto ma woon ko carrément. fa faar bi lu ci nekkoon. non sama faar dama gaañu woon dama gaañu woon ci entraînement bu mu desee dix jours. ma gaañu gaañu bu sérieux dañ ma noon yóbbu hôpital ma bindal ma ay garab yaa ngi dégg non xaaral ma woon la ma aal ma sama téléphone ma woon la man jëw jëwu sama téléphone aal ma téléphone man dafa leer nañ Tidiane Faye dama ko daan lii lii lan la lii li ñu marqué nii jëwu Tidiane Faye ngi laal suuf ji bi dafa laal suuf bu baax la baax xam nga lii lii dafa laal suuf gis suuf si xolaatal fii bu baax xoolal fii amul benn sikki sàkk bu la xam ne lii dafa leer nañ Tidiane dama ko daan naj ko ba dënn bi laal suuf fii dënn bi day laal suuf carrément la man ndam lii laa soxla ñu jox ma ko soxla man ndam muñ ma jox waaw ndam bii dama ko daan waruñu woon avertissement boobu ñuy wax boobu jeex lamb ji jeex na bu yàgg Tidiane benn si mi na protège daam ci lamb ji te da koy tere boobu lañ ko doon jox avertissement par la nag man sant naa bu baax man sama ndam laay feete léegi naa bind recours man ndam moo ma ñu jox la sa victoire ci biir. ci géew gi mooy ndam loolu bopp bi laa suuf dinaa bind sama recours. comme Bombardier Balla Gaye boo boo boo ñu ñëwalaatee ci combat bi li ngeen bëri li ngeen bëri gis na ne combat bi bëri na calcul presque bëri ngeen 20 minutes ngeen bëri da ngeen a bëri minutes 10 minutes mi-temps bëri waat yeneen 10 minutes euh, arbitre soog a soog a a tas combat bi jox la victoire par avertissement. waaw mais mais mais combat bi lan moo tax calcul bi bëri. waaw combat bi foog mu bëri calcul ndax dañu euh, làmb ji benn man ñëw naa ba jigéen fekk fi Tidiane ji indi sa indi maa ko gën a diis ci combat bi Tidiane gën a gaaw ci combat bi wante boo xoolee man liggéey naa si ak samay kët ba ñu doon message di liggéey gaawaay di football di def lépp loolu laa mujjee woon di def soo xoolee bu ma Tidiane di ma sàcc dama pivoté tourné ko waaw tourné ko jàpp ngemb la njett ko moo lay wan man damay liir liir naa ko baax a baax moom ñemeetul waatul ñëw loolu mooy forum moom ñemee waatul ñëw ibil naa ko sama tànk tegal mën a woon fatt fépp te jaar na ci flan jaaru fa de eh, na ci flan ba mu ñëwee lan laa ko dafa jaar ci flan ma tourné pi fatte ko lu si yëpp fa la amee si yëpp fa la amee loolu yëpp fa la xewee comme moo lay wane liir naa tijaan bu baax a baax a baax a baax ba mu ñëwee fa laa ko ñettee nee ko boo ñëwee heureusement li ma ko tegal tànk bi ne ko bu ñëwoon dama lay lokke ñemeewul jël tànk bi cent pour cent billaay bu segoon sànq bi bu ngi ma lokke ko duñu yegg foofu maanaam xalaat na loolu na bërikat la noonu naanaan la bërikat la nangul naa ko bëreem maanaam man dama lay wax dama ko daan ba mu leer nañ mais moom mi ngi contesté jël bi yow ni nga jàppee ne dan nga koo daan moom tamit noonu la jàppee ne même sit bee mi wax barki alxuraanu kere même sit bee mi wax billaay walaay tijaan moom ma njëkk toog moom ma njëkk dafa toog ba pare maa gën a gudd daa toog wax mooy mooy mooy mooy dernier sit bi waaw dernier sit bi billaay walaay tijaan daa diju daa diju sama tànk laa ko gàll mu diju ba pare man man xool xool naa mu door a dijju mu door a door sama épaule ndax maa gën a gudd fu may sànnee foo daal day dijju loolu dafa dijju ba pare yéen na caméra maa fi ngeen nekkoon ak ku nekk caméra bi mënul yem photo bale ne bu mu la ko wanee dafa dijju leer nañ boobu muy wax mi ngi daal dijju mu leer nañ yëpp naa la ko envoyé photo yi dafa dijju man nag damay gërëm ñi ma jàppale sama ko mais mais balaa gërëm bi balaa gërëm bi ñu bëri nee nañ vaar VAR VAR dafa waroon a ñëw parce que euh, euh, euh, mbër yëpp ñoo bokk licence bi ñuy dagg Balla gay mbër licence bi mu dagg ak Ndandi Fall licence bi mu dagg ñoo bokk ci Pape Thialis Faye mu tëgg làmb ji licence bi mu dagg licence promoteur bi mu dagg ak beneen Makan Beng licence promoteur yi mu dagg benn la amul amul amul warul am discrimination vaar di ñëw ci journée yu mag yi du ñëw ci yeneen journée yi mais VAR bu amoon dem nga yaakaar ne làmb ji du du du teel a jeex. waaw loolu moom lu ma metti la lu ñu metti la ñun mbëri yu fo doon bëri CNG nañu jox cër ñun mbëri ndax mënuñoo bëree combat bu toll nii yaa ngi dégg lim la maak bi VAR ñëwul bu VAR ñëwul combat bi jeex na bu yàgg atte nañu bu yàgg il est bu ñun ñii ñu jox ñu suñu cër ndax mënuñoo bëree combat bu tol ni ñun ñëpp ñun ak ay ñoom Balla Gaye ñoom Modou Lo ñoo yem promoteur Pape Thialis ak ñooy ñee ñooyam mënul bëre tëgg combat bu toll nii ba pare vaar ñëwul tëgguñu du respect CNG bila seen yow la ñuy waxal joxal mbëri yeneen mbëri cër dañ la fi teg pour nga jàppale mbëri waaye li ngeen li ñu def teguñu ko si yoon kenn rafetewoo ko père bila yow la ñuy waxal bu baax ngeen dox si loolu mënuñoo nekk combat bu toll nii amul vaar démb ma génne dama dem si Babacar direct coach Babacar arbitre mu ne ma bu vaar amoon atte nañ leen mu ne ma li nga wax dëgg la nangul naa la ko waaye ñun ñun arbitre lañ loolu li règle kii wu CNG la man ko yéen yen a ko war a imposer yéen arbitre yi yéen a loolu ndax yéen ay arbitre yi yéen a war a leeral lu ne mën na ci fekk comme nag VAR yen a ko war a imposer ba amul VAR doon arbitre combat bi ñoom loolu la ñu war a imposer ko pourquoi léegi léegi ñoom ñu ne VAR am na pare ñu koy taamu yenn combat yi. ñu ko ànd ci journée yi yeneen journée yi. loolu doolu respect. bu ñu demee ba amuñu mooyen sax ñu jël benn site internet te ko ci kii mu def vaar bi ci bu dee yenn combat yi loolu mën na nekk niveau bi toll na fa mm, yaa ngi dégg bu dee yenn kii ñu jël benn site internet mu nekk vaar bi mm. bu dee yeneen combat yu mag yi ñu indi vaar bu mag loolu d'accord na loolu mooy yoon ah, comme vaar xas nañ ko déclaré si làmb ji nañ koy indi si journée yëpp bu dee kii ñu xool benn site internet lu mel ni Leewtoo indi ko. ñu gérer VAR nga tegal leen kii angle yëpp dañ koy am angle yëpp dañ koy am bu kii arbitre dem bu dee am mu ñëw joxe ndam loolu se normal mm-hmm. waaye ñu bàyyi bàyyi lamb ji démb ñëpp seen faay feeñ lamb ji bëri na coow de lamb ji amul benn coow lamb ji coow lu mu am maa daan trois jël laa ko daan ci benn jour Tidiane tamit jàpp na ne moo la daan Tidiane dama ko daan trois jël ci benn jour daan naa ko si avertissement nel benn daan naa ko si daan naa ko samp naa bopp bi dij naa ko mais Tidiane tamit jàpp na ne moom moo daan daan di faal ci biir géew. lu doon nangul wax bañ pare dafa yolo ci dem di wax. bàyyi na plateau. waaye li muy dem li muy wax. non ko teguñu ko ci yoon parce que du ma ba yegg si fii ñu may ñàkkaloo ci yenn détails yu. naa wax tamit ci yenn site internet yi. déglu naa si rapporteur yi am na yenn jigéen ñi nga na koo teg ci yoon. déglu baax a baax te ñun ñëpp ñoo bokk li waral loolu mooy ëllëg boo ñëwee ci mbër bi bëgg ko jël mbër bi ne la doo jël da doolu am confiance yow am na yenn baat yu ma déglu xamee naa seen baat te am na ñoo xam ne ñëwoon nañ jël si ma si rapport maa ngi dégg mais tijaan jinne la jinne la jinne affaire yooyu tegu teguñu ko si yoon dama daan tijaan waaw dafa am benn xaatu xeetu rapport bu la xam ne tegu teguñu ko si yoon du du du du problème mais tamit du nekk reporter du tee nga waxal mbër bi fooram. non waxuma la fooram ñëpp nangu na nekk bërikat la. la fooram dama ne la. si biir rapport bi xam nga ndeysaan euh, Lamine Ligue TV dama ko déglu mu ne bopp bi Tidiane daanu na eh daanu na ba bay na ah jeexagul dala si wax na na jeexagul comme moo lay wan ne moom at bi comme suuf leegul si la base mu dafa gisoon bopp bi waa daa gis bopp bi laal na mu a ah daanagul ah waaye Tijaan bu génnee fii ndaanaan la nagul loolu mooy rapport jox la ñun ñu ab cër bu ñu moom waane boo dégg nga ne ndaan bu defee nii ak nii yooyu baadu nu mu rapporté baadu far la te loolu nit warul di rapporté di far day indi problème ëllëg mbër bi di nga ñëw gox mbër bi ñu ne la bu mooy loolu te loolu du respect yow moom déglu nañ la bu baax teg nga ko si yoon yaa ak Seydina xam nga ak ku dëkk eh, Kër Idi non waxuma Idi waaw Idi tamit daan waxuma Idi sax euh, kii tamu dëkk Kër Massar Njaga waaw Njaga tamit Njaga Essar yéen ñëpp déglu nañ leen bu baax a baax waaw da xam ne dañ koy teg ci yoon bu baax xam nga kontaan nañu ma sama ndam laay fer di gërëmaat bu baax ñu ma jàppale. góor a gërëm demb da ñëw plateau damaa xamul yaram bu tàng bi moo la jàpp combat bi jeex yaram bi tàng nga ñëw rek ne jox leen ma Moussa Ndoye damaa xamul loolu yaram bi tàng bi la woon yaa ngi ci loolu waaw wala déet wala wala wala wala wala lu xew Moussa Ndoye waaw Moussa Kouens ama neex kon lébu yi nga single dëgg ma Moussa Ndoye Kouens ama neex waaw na kay Modou Anta sax si la bokk Modou Anta bu Kees bu Kees si la bokk Alizé Zion Alizé bu mag si la bokk ñooñu ñëpp laay bëreel Alizé 2 bu géej waay mag kooku day dóor mu daanu de dégg kooku day dóor nga day day dóor day dóor nga. maag soq tamit suñu combat dañ koy leeral waaw. yaa ngi dégg li mu la wax l'essentiel man foofu laa bokk. Moussa Ndoye Coens ama neex soq. yaa ngi dégg la Modou Anta. waaw fa laa bokk man foofu laa bokk sama place foofu la si làmb. mais diggante boobu xatul ci yow. waaw yow déggoo li ma la wax man mu xanaa xamoo combat loo mu bëree calcul sax Tidiane Faye dafa digg dóom te moo ma gën a gaaw non xam lu tax Tidiane andi na fo andi na andi na état ngi dégg li mu bi la gën a liggéey yële loolu moom dëgg la wante ba mu ñëwee Tidiane maa ko gën a diis man combat bi diis naa si liggéey naa gaawaay sax wan des na diis naa si combat bi te bu du woon sama faar bi naa. la salle de coach de la entraîné loo ba nga tëdd mun a la jógal. may ñu ma jàmm ci combat bi këcc bi sax daf maa mere ndax yeggaliwu ma ndax woo na ma këcc ko de sant naa gërëm ma ne ko moom ko mu ne ma waxoon nga ma faar bi ma ne ko bi daa yënguwaatoon ndax dama mujjoon bu mujjee bu nekke semaine combat di maak Papa Boy Djiné ak combat Kaolack bi suñ nekkee semaine combat dañuy liggéey physique léegi man loolu liggéeyu ma ko ci combat bi ndax da abay équilibre laa ko di ko liggéey ndax mere woon na ma ci loolu waaye ma ko waxee comprendre na ma quoi xam nga sant naa ko baax kër ci Codé Moustapha Moustapha Codé sant naa Bambo la solution bàyyi la nga sant ñi la jàppale Bambo la solution sant naa waa ji gis naa ko démb mu ñëw def capuchon daal démb daal laq waaw Bambo ndaanaan la waaw sama waay la sama lëpp la combat bi la ñu ànd sant naa ko gërëm ko Lamine sant naa ko gërëm ko i Lamine moo waaw Lamine moom doomu grand chef la da ngaa mystique ci la moom day ñaanal si sànq si garaat non ñëpp man ñii ñoo ko xam ne man damay wax ñu nga xam ne yaa ngi dégg la tijaan tijaan gënu kan gënu ko wax dëgg neex yàlla ñu ko ñaanal naxuñu ko hmm, waaw tijaan ñu ko ñaanal naxuñu ko tegtal bu baax la yool ci combat bi tijaan ma ñëw fekk ko ci làmb ji dama jaayande bu ñu jiitu ko ci làmb ji mu njëkk maa dugg comme tijaan am na tegtal ci làmb ji am na ñaan ci làmb ji bu baax mbëru mag la di woo di gërëmaat la eh, kii Lamine gërëm ko bu baax a baax kaaw gërëm naa la sant la kaaw daa jóge ba Guinée bi gi ngir sama combat bi sax sama combat xam nga Cissé sant naa ko gërëm ko Cissé di gërëm eh, kii mm, da kii waay waay dan dan sant naa ko gërëm ko di gërëm nag samay mbok mbokk samay mbokk sant naa leen gërëm leen di gërëm samay sama seeri samay doom dégg nga samay doom sama doomu nday yëpp sant naan gërëm di gërëm samay xarit Cheikh Bambara Ibrahima Ndaw euh, Baye Tafa ñoom sonn nañ ci combat am ma seen fay Cheikh Bambara ku dégg ba damay jël machine am fu dem naa fa te laajuma dërëm sama gaañ la moom la xam nga Gora Sarr Gora Sarr sant naa ko gërëm Gora bu ndaw Gora bu ndaw sant naa ko gërëm man aw maay fan si gërëm xam li ma am ay rak ay xarit man ñooñu ñooñu ñoo may jàppale ñi nga gis nii samay doom fi nekk samay xarit samay rax professeur Sidibé professeur Sidibé sant nañ ko gërëm ko euh, Ibra Seck carrière jàpp na ci combat bi Pama Diop Diop jàpp na ci bi il Dramé jàpp na ci ko Alioune Badara Kebe mention spéciale moom mooy suñu président guddeeg bëccëg mu ñuy jàppale gis nañu yóbbanteem Badara Kebe sant naa la gërëm Badara Kebe Badara Kebe sant naa la gërëm lu baax a baax Angel Fall sant naa la gërëm la dégg nga Formose Mendy Formose ñëw nga bu baax a baax sant naa la gërëm ñëw nga Formose ñëw na ko daal yàlla neex ñu ñu sa ginnaaw Formose ñu ñu sa ginnaaw bu baax a baax baax a baax a baax Kaal Aminata Bousso sant nañ la gërëm la ñëwul xam naa dafa jàppoon rek sant nañ ko gërëm ko bu baax a baax waaw la mu wax di woo kii Ousmane Ousmane tamit Ousmane tamit sant nañ ko gërëm ko Ousmane Ousmane Ousmane sant nañ ko gërëm ko a bu APR dégg Euh, Ousmane bu APR sant naa ko gërëm ko Ousmane Ndiaye bu APR sant nañ ko gërëm ko bu baax a baax Ousmane Sarr sant naa la gërëm la bu baax a baax waaw waala mbaan jagle téeméy ndomba jàmm gën séer bokki neddo cago ñëpp képp koy waala waala sant naa la gërëm la di encouragé sama sama sama sama jarbaat bi alaaji lamb noonu la jaw di numéro 2 waaw wax dëgg neex bëri na ba dee waaw yàlla moo ko xañ di wax na takaan ngembali Euh, yàlla na ko yàllaat may ndam di gërëm sama ñaari yaay sama ñaari yaay sant naan gërëm bi sama yaay ak Merlo sant naan gërëm leen baax a baax sama yaay ak Merlo sant naan baax Pape Modou Lo Ndiol Waalo Ndiol Waalo tamit na am baax a baax Ndiol Waalo ndara sonn na trop sama doomu nijaay la wax dëgg neex yàlla sama doomu nijaay la sonn na si bu baax a baax Daba Thiam mais ma Daba Thiam. mais mais maire bi nee na nga jël sos sa yaay nee na nga jël sos. waaye man lu gën a métti laa bëgg. wax dëgg na mel me wuy ma ñaay waa waañ bi yëpp sant naa waa waañ bi yëpp sant maa ngi waa waañ bi képp sama jabar yi sama jabar nekk si kër gi yëpp jidoo ay sama jabar yëpp ñaari kër yi sama soxna yëpp sant naa leen gërëm leen bu baax a baax képp nag sama jabar bu nekk si kër gi ñaari kër yëpp sant naa Ablaye Ablaye Maybaan euh, Malick dégg sëñ Abdou ñoom yëpp sant naa leen sama jigéen ñi sama jigéen ñi du ma lim kenn bindu laa si jiital la jox ñëpp ñoom dégg nga moon jaam sant naa ko gërëm nga alaj maari son na ci comme alaj sar ñëpp sant naan nga waa Bagdad ñëpp sant naan gërëm leen bu baax a baax a baax a baax dégg nga yaa ngi dégg mu wax di gërëmaat waa waañ bu baax di ko jiital di ko jiital daba euh, ko waa waañ bi sama géwalu bi laa koy jiital daba caam sant naa ko gërëm ko daba caam moom wax dëgg ne ay a ngi guddeeg bëccëg day sonn sama mbir mi Baye Madaar moo jiital booy ndaw yi Baye Madaar sant naa ko gërëm mais merci Messi tamit sant naa ko gërëm ko saa bu ñu amee ko ñooy si sonn di togg sant naa gërëm leen bu baax a baax a baax a baax a baax di gërëm ñu la xam ne mooy ñaari ma ñaari Maymuna yi Maymuna ak euh, Mariama ginnaaw yàlla ñoo ma booleeg euh, Sidibé Barzo yàlla ko yàlla may ndam Barzo doomu Grand Yoff la yàlla na ko yàlla may tey mii ndam bu sedd guy ci barke Seydina Muhammad di gërëm waa Fassane bu baax a baax waa Fassane ñëpp a ñëw ñoom Pama Góor ñoom euh, Moussa ñoom ñëpp waa Fassane ñëpp daal bu ma limee damay juum képp ku nekk Fassane sant naa la gëm Cheikh Omar Cheikh Omar Cheikh Omar sant naa ko gërëm ak kii non Tafa Gas Gas ak Ndaas Ndaas tamit mention spéciale booy yëmmu Ndaas moo leen jëndal billet Ndaas moom aw ma fayam Ndaas wax dëgg yàlla naa la gërëm la bu baax a baax Ndaas njool waaloo ngële xam la ma bëgg balaa ngemm gi di fenn ñu jox ko waaw ah, xam nga sonn si combat balaa ngeen di fen dañ ko war a jox combat il est temps bu bëri ndax xale mënul tegle quatre victoire toog depuis kii ba pare bëriwul te ay moroom ñu ngi ci làmb ji quatre combat mënoo ko tegle ba bañ a bëri ala kulli aal daa war a bëri. Ah, xam nga quatre combat quatre combat mënu ko tegle mënu ko tegle tax li ma ko digal neel ileelu gumba kuñ ko jox mu ndax ragalul kenn waaw ileelu gumba léegi lay yor kuñ ko jox na jël waaw ileelu gumba nag lañ bëgg mu yor képp kuñ ko jox bu mu xeeb képp kuñ ko yor na jox ay ca njool dem ca ñu gis ni nga sonnee ci combat bi sa diggante ak ndande lan la waa père maa lay ziar du nuyu sa waaji bu baax a baax waa kii moom sama grand la sama lépp la waaw dañ koy ñaanal yal na ko ndam ni jig rek mu nekk ay ndami ndam si barke yonent bi waaw parce que suñu wareef lañ def rek bu ñu sonnee si moom daf fekk deret deret deret deret mooy sot rek te xam nga ñun waa ay waalo waalo lañ waaw te xam nga waalo waalo day sot waaw ñu ngi koy ñaanal nag ndam lu jukk mu nekk ay ndami ndami ndami ndam incha allah rabbi mais yow fan nga toll lu promoteur yi wax ci yow. waaw dañuy daw rek ku si mel sa saar gi ñoo yàq combat yi rek <laughs> ku si mel sa saar gi ñoo yàq combat yi rek yow nga ram mi sama saar gi man ku ñu ma jox rek moo bëri hmm. waaw. Boy Sadio. combat la ma jox Boy Sadio wala Mamour bu Faas. waaw Boy Sadio waaw. Ah, waaw. bu Faas ku ma si jox ma bëre waaw. noonu la demee incha waaw di santaat ñëpp képp ku nekk ci koñ bi sant nañ la gërëm la bu baax a baax samay yaayeeg samay ñëpp ku ma jàpp ay daawut caam ñëpp sant naa la gërëm leen dégg nga Isa Mbaye moom xam naa ne moom kaay toog moom moom avant combat lu ne lay ñëw wax léegi lii lañ bëgg xam nga moom mooy mooy moom mooy sama critique nu ngay wax sax bu xam ne moom bu ma nekkee loo xam ne dafa ma ko dafa waaw waaw waaw moom waaw moom mooy wàllu fan si club bi quoi tey moom laa koy jox mu wax maa ngi leen di ziar bu baax a baax a baax di sant ñépp di ko félicité ndax lii rek lañ doon xaaris moom ñun xam nañ ni moo mën Tidiane Faye fu ñu laale moo ko dàq bëre foofu làmb nag day day làmb daa baaxoo coow Tidiane Faye lii la amoon ci làmb ji kon dañ koy bàyyi li moom lii la am ñu bàyyi koog moom di ko wax ñun soxlootuñu mbër yu mel ni tiijaan Faye bu jëlatee mbër bu ruj barañ man du ma dem estaat billaay wallaay mbër bu baax mbër kii Moussa Ndoye ama neex coins mbër yu baax ñu ne tey ñu rey nandi ñun loolu lañ bëgg nandi boobu nandi saa ñu ne tey ñu rey ko boobu lay jommal làmb barki Serigne Touba bërëm waneegu ko ba léegi te kii gor la ñun ñii ñëpp li ñu doon për di për si làmb yi ndax daa belee xamuñu si dara billaay te te bu ko neexoon mu ne du bëre parce que ay adversaire am ñoo tëgg làmb ji gis nañ démb mbëru jàmm nga ni ñu mel si stade bi mais xoolal daf ko bëre ba làmb jeex fii lañ xamee ne naan daa blessé di ko ñaanal ndax ñun ñii ñëpp maire bii ñun maire bii nii xaalam yi fii nu nekk laa koy def barki Serigne Saliou Mbacke su ma feebaree njàppali amul lu mu ci dul def billahi ñun suñu wareef rek la def koñ bi ñun benn bopp lañ chaque jour gis nga ni ñu toogee nii nii la ñuy toogee mag xale mënoo ko xàmmee naan nag dafa oyof man moom wax dëgg yàlla fu ma fekk dëgg moo dëgg moo ma ñor su ma su suba suba suba suba su ma nu yéen wér na dama koy naan dema dama entraînement te du nekk si jàmm tànk que commencé wul parce que nekkul lii mooy objectif bi Nandi Fall lañ bëgg a gis Nandi Fall 2010 2011 bu coriace Nandi Fall bu wow kong démb euh, dañ lay defal mention spéciale parce que su meeku nga làmb ji yëpp kontaan ñëpp supporter yëpp ne Nandi tey ñëw na waaw loolu lañ bëgg nag mu continuer bu tegg sa tàng fi nga ko teg fii kase la Moussa Ndoye bu mu daw avance bi na ñëw ñu bëre amul amul combat na ñëw ñu bëre. bu ñëwul fu mu nekk fu mu wàcc esaan maa ngi si kawam Moussa Ndoye laa soxla fu mu wàcc ba biir yéen waaw.